ñu bari dañuy woote laaj poroxaan mais dañoo gis ay wax yuy wax ne dañoo jàpp poroxaan 25 janvier nangam nangam loolu dara wéru ci sëriñ bi li mu wax mooy màggalu poroxaan bu jàppee bas bi yëgle ko fi xam leen ne wax ji wérut mooy lañ dugal dañ jaar 25 janvier 2018 25 janvier bi doon 2018 2019 lay noonu kon daa am ku ko wax ku ko neex rek jooju wax nag lii da cee gën a gàtt waaye lu mu mën a doonati bu kenn jëleeti ay wax jóge ci kër sëñ bi di ko siiwal te tegoo ko fu wér ndax loolu du yar duy teggin du taalibe te am na nu muy demee ci wax it nañ koo toppanteeg nit ba mu jëlee cëb coono te boobaa kenn du ko tooñ moo tooñ